yii ku ko mën a fay yàlla kenn mënu ko fay yàlla waaw jullil nag jaamul yàlla waaye bu ci aj sa ajjana jaamul yàlla te gëm ne yàlla mooy dugalee ajjana waaye nga boole kook nag bëgg rasulullah lii rek laa bëggoon a wax mooy lu ñu mën a jaamu yàlla nañ ko boole bëgg yonent bi te bëgg yonent bi nag bu ñu ko yemale ci làmmiñ na ñuy julli ci moom lu mu gàtt gàtt bër bu set ku jëlul tari ku jël tarixa bi moom taxul may wax kooku moom obligation la ci moom waaye ki jëlul tarixa bi lu mu gàtt gàtt maa ngi lay ñaan bër bu set defal téeméeri salaatu ala nabi salaatu ala nabi lu mu gàtt gàtt def ci téeméer yow ki may déglu tey xale bu tuuti yow ki may déglu tey xale bu jigéen bu ndaw yow mi may déglu di mécanicien yow mi may déglu di jàng tailleur yow mi may déglu di jàng menuiserie yow mi may déglu di mason yow mi may déglu di étudiant yow mi may déglu di élève bu war a dem jàngi primaire góorgóorlu ba bër bu set nga def téeméeri salaatu ala nabi mooy allahumma salli moo gën a gàtt ala sayidina muhammadin wa sallim donte salaatan battara la xam nga lu tax waaye moo gën neen salaatan battara la yonent bi nee mooy xar mu amul geen waaye am nga xar rek yow kay mu ci sart geen yow xar nga bëggoon jamono moo yegg foofu gaa yi boo <laughs> xam nga ko xiif nga indil ko xar dana fa dal xool ndax xar mu am geen la ñun dugguñ tabaski du tabaski xam nga kii tabaski mooy ki jàpp tarixa taalibi maam borom bi soobu ci yoonu maam borom moom na def salaatu bu mat sëkk tiijaan bi nag soobu ci yoonu tiijaan na def salaatu bu mat sëkk waaye yow mi nga xam ne bokkagoo fenn xa amagoo xar tabaski waru la te xiif nga suñ la nee xara ngi rek neel bismillah ren di te fexe dem lakk gaaw noo rëccalee sa biir loolooy salaatan battara boo ko bëggee dégg xar la daal waaye amul geen sa yoon mun na ci geen gi nag yow amal xar rek kuy am xar am nga xar ku amul xar am nga xar loo gàtt gàtt itte yow miy def école primaire boole ci bër bu set nga ne allahuma salli ala seydina muhammadin wa salli tuuku waaye soo yeggoon ci nag allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salli booboo gënal yàlla nag soo ci saxee sa yaay jarul mu lay utali kiis yaa ngi may dégg rose borom rose waaw kañ jarul sa yaay di utali kiis waaw kañ yow mii shérif jarul ngay ñëw ci sa turandoo mu di la bindal kiis yow sëñ Abdou mii jarul ca daara ja ñu naan maam Abdou dañ bëgg xel mi neex mu mokkal alxuraan déedéet saxal ci salaatu ala nabi day fomp xol te xol bu setee rek lu dugg takk waaye bu setul lu dugg day génn te salaatu ala nabi rek moo mën a xëcc xol ba mu weex tal set wecc lu duggati rek day topp loolu salaatu ala nabi rek a ko mën te jàng bëgg na mu mokk kiy jàng métier bëgg na métier mi mokk liggéey bañ naa bëgg naa bañ a fàtte te bëgg na avancement loolu salaatu ala nabi rek a ko mën mooy caabi passe partout yow jigéen gi nga xam ne da gis sa règle ba yàlla ne la bul julli baal naa la julli waaye bu weesoo fay ko bu wee bu astafurlah waaw <coughs> bu weesoo julli gi bu ko fay julli gi kenn du ko fay waaye bu weeru koor jotee nga gis sa mbaax sa règle da koy fay ndax at ak at la moo tax bii quotidienne la bër bu set moo tax yàlla ne la li la jot a faat te règle la ci julli boo setee bàyyil ma julli yooyu jéggal naa la ko waaye commencé fi nga sete bu dee weeru koor nag mu ne la notti ko ndax at ba at la la ma la lebal fay ma ko balaa at mi di jeex nga ne d'accord waaye tey loo gis-gis sa règle yow jigéen jàppal rek njàpp moomu dañ ko sopp jàppal rek ñëw yor sa kurus allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaatu ala nabi rek moo am garanti bu day ni boo setee jàng ko ñu nangu boo setul jàng ko ñu nangu soo jàppee jàng ko ñu nangu soo jàppul jàng ko ñu nangu génnal ci luus bi léegi ñëpp xam ne da ngaa tuur ndox wala da nga da gannaaw dem gannaaw kër nga génn taxaw ci ci mbedd mi al ci ëtt bi alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jar na ko ni xam nga lu tax am na ko bëgg a dem cabinet te mënu ko ah waaw moo tax ñu alhamdulilahi alladi xaw ma naka minal xubusi wal xabaais waaw ah, moo tax boo génnee yonent bi ne santal yàlla xam nga lu tax am na ku ko bëgg tuur ndox te balaa tuur ndox médecin yi ñooy daje Mansour a ngi nii xam na li may ci hôpital lay liggéey am na koo xam ne balaa tuur ndox médecin yi dajee pikiir ko jël raakool monteel ko pour mu mën a tuur ndox am koo xam ne balaa tuur ndox dina toog 48 heures garab bu ne dinañ ko ko nàndal pour mu mën a dem gannaaw kër yow nga lekk sa ceebu jën sa biir fees nga naan sa ndox gallax ndiku naan attaaya jaaxaan fell sa guro yéey wala say yéey sa si ngom jaaxaan ba ba ba ba ba tuur ndox yëngal la nga ne bëreet jël sa tala si dugg ci biir toilette bi tuur ndox génn waaye neen alhamdulilahi rabbil alamin ndax la ma diisaloon yàlla jël na ko bu ca yem dóoral salaatu ala bi ci saa si xamoo dañuy bañ ñàkk teggin sax waaye boo ko dóoroon ci biir toilette bi yàlla nangu billaahi ci biir duus bi boo fa toogoon di def salaatu ala nabi yàlla nangu ko ci biir duus bi salaatu ala nabi rek ka am boobu garanti yow Chérif Ibrahima nekkal ak sa soxna ci biir néeg bi yéen a xam lu ngeen di def waaye boole leen ci salaatu ala nabi yàlla na nangu na yónnent bi rek mooy caabi passe bu dee alxuraan sañatoo ah bu dee alxuraan sañatoo ko ndax dafa am teggin yu alxuraan laaj bu dee wérd nag sañatoo ko bu dee turi yàlla léegi nga torox bu dee turi yàlla moom ci saa si ngay al ndax dafa am neneen nu ñu koy def yow nga ne futteeku ne dungu di dóor sa turi yàlla yàlla ngi lay xaar waaye bu dee salaatu ala nabi yàlla dafa naan malaaka yi bu mu rëcc kii booleel na ma ñaar mu ngeeg soxnaam ci biir néeg bi ba noppi nag ñu may bàyyi xel ci sama yonent bi kon na nangu leen booy ŋaang rek ñu bind loolu salatu ala nabi rek ko moo tax nañ ci góorgóorlu li ma leen di wax du caaxaan moom rek a fi des ci jamono imaam Yuusu Géey mii lu ngeen ko bëgg-bëgg ba ñëw mu naan leen yaa sattaaru yaa jabbaaru yaa qaxaaru ak a baax dëgg la de waaye moom mu ngi ci salaatul faatiheem di leen nax salatu ala nabi mooy li xew ci jamono tey mooy li valable ba bés pénc ci taxaw te du gaañ kenn kenn du ci alko kenn du ci toroxe leneen lu dul moom nag mën na laa toroxal gis nga julli li muy baax baax boo jullee te amoo njàpp te tey ko yéefal yàlla ut na yet topp ci sa ko weeru koor nga nga gis jàdd gauche jàdd droite gisoo kenn ne xaaral ko jëm te benn mbiskit benn pomme dogiti banaana wéet gàllaxle ko génn naa si weeru koor yi ni méttee fekk yow jege woo wax sax yàlla rëq sa ndig